gis nañu en terme de euh, jeu équipe bi produit na jeu bu baax a baax a baax euh, li manque rek mooy euh, réalisme devant les buts ngeen gis équipe bi sama ginnaaw ñuy entraîné di waajal suñu match ak Dakar Sacré-Cœur avec beaucoup de concentration l'effectif aussi est au complet gis ngeen daanaka pratiquement tout le monde est repos présent mu nekk match boo xam ne nag match bu nar neex la ndax Jaraaf dina ko permettre bu gagné ce match bi moo xam ne moo war a dox digganteem ak Dakar Sacré-Cœur dina ñëwaat ci première place bi en cas de match nul bu ASC bu Tëngéej FC donc giraffe mu ngi nekk ci ñaareelu place bi ak 24 euh, points Tëngéej FC le leader mu ngi am 25 points Dakar Sacré-Cœur mi nga xam nak mom la Jaraaf fas dajal mom mu ngi nekk ci juróomeelu place bi ak 20 points donc mu nekk match bo xam ni match bu euh, nara neex la match bu am enjeu comme ni ma ko rek. Euh, ndax dina permettre jaraaf bés bu fekkee ne gagné na digganteem ak Dakar Sacré-Cœur mu mën a nekk ci première place bi bu fekkee ne Tëngéej dafa def match nul euh, Tëngéej nag euh, mu nekk un solide leader donc mu nekk duel au sommet boo xam ne ni match bu nar a neex la diggante dakaar Sacré-Cœur ak ASC Jaraafu Dakar fii ci stade Iba Mar Diop mu war a am samedi le 2 kon di wax mbokk yëpp ngeen ñëw en masse supporter équipe pousser ko vers la victoire.